ذاتها وامن عليه بكل ما له لا قد سأل الندى من أين فارتسب لشيخ أحمد مدسيس وهو يا لمن قل فيا إلهي تقبل منه حاجته ومن عليه بكل ما له لا سألت الندى من أين فانتسب wa barakaatu yow mi siifur Baye Birame 2 Jaamal TV maa ngi lay ñaan ngay commentaire tey partagé tey j'aime bu fekk abonné goo ngir yàlla nga laal kolos notification boobu nga bës abonné bi laal kolos notification bopp xam ne moo ñu may doole. Seydina Omar ibnul Xataab radiyallahu taala anhu dafa dëkkandoo koo xam ne ci katolik la katolik bi nag mu ngi ameel Omar bor Seydina Omar génn këram di julli ji diggante Omar ibnul Xataab ak julli lu ca dox lu rëy la. ba te ba tee ko dem jàkk ji julli lu rëy la Seydina Omar génn këram xool tappaat tappaat booba ay rag waaye léegi miir lañu xam xam nga miir bi nga xam ni mooy miiru catholique bi mu dëkkal njabootam rëdd nañ ko ak yàq nañ ko waaw njabootu Omar yàq nañ ko Seydina Omar geesu gis ko ñemetu la dem jàkk ja tey mbooloo maa ngi koy xaar pour mu war a julli Seydina Omar taxaw waa ji ci biir kër gi di katolik nekk ci këram bëgg a génn seen Umar taxaw mu ne Umar daf koy yu te amul lu mu ko fayee daf ko bëgg a toroxal kon génn mu toog toog toog moom waa ji ba seeg mu ne daal lii may génn yitte la boo xam ne mënu ma ko bàyyi mu génn daal ne Omar xanaa bor ba moo tax nga taxaw Omar ni ko déedéet mu ne ko dama defoon ni bor baa tax ma bëggoon la ñaan nga mu ñëw ma fii ak i fan mu ne ko loola tax a taxaw mu ne ko lii sama waa kër def ci sa kër motax tax sekk ben tànk waji ni ko li muné ko li muné ashhadu an la ilaha illallah xolal kuy ligéyal diine ñun nak motax tax ne bo toujours bu ne diine amu fere jikko jikko mo fi amul jikko mo fi amul waaw jikko mom ci deug deug te jikko bi nga xamni moy fondé lépp luñ ci jikko moy kersa kersa amatul ci réew mi du ci kanam du ci dara wajuri yi seen diggante seen njaboot kersa amatu njabot njaboot rusatu ñu wajuri wajuri rusatu ñu rusatuñu njaboot lu leen neex lañ koy defee ci seen biir njaboot léegi dañuy dund dund bayima yàlla neena sax ñu ngi tooñ bayima ndax bayima bu amon xel bi jëfé ni ñuy jëfé ulaika kal an'ami bal hum adall nga gis ni kon sunu dëkk ñun sàmmuñ ko xoolal kii rek maa ko yereel bu doon yow maa da naan ko sama borom a tax a taxaw borom du la a taxaw sax ñëpp dañuy daal di gis ni ñun ñi fi toog tey wuyoo réew mi kenn ku nekk amee nga xàq réew mi ñun ñi fi toog kenn ku nekk amee nga xàq réew mi boo ko war a jox ndax ci nga dunde ci doole réew mi nga dunde ci barkeb réew mi nga màggee. kon loo war a delloo réew mi bi ngay juddu indaale woo sa saw indaale woo sa xar indaale woo sa dugub indaale woo nit ñu la rendil wala tudd da ko fekk ci réew mi réew mi rendal la loolu jox la ko defara la ko pare kon yow looy delloo réew mi loolu yëpp lislaam am koy leeral kon lan lañu war a delloo réew mi boo déggee Seydina Muhammad ni xubbul watani mina bëgg sa réew bokk na ci gëm yàlla mais lan mooy bëgg réew ndax mooy wax ju bari wax ju bari waxul taxul ñu lu tax nit kuy wax lu mu dul def nu ngeen koy tuddee ah fenkat moo yàllaa ngi wax nan yaa ayyuha alladina amanu ee yéen ñi gëm li ma taquluuna maa la tafaaluuna lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def moo tax jullit <laughs> déet waxuma la loolu sax man damay wax ni bu ngeen bëggee gis fenkat rek xool leen jullit buy tiim al alquran di jàng bëggee xool leen jàngkatu alquran aha aha xool leen jàngkatu alquran mu tiim alquran yi jàng ba pare ub kaami bi nga xool ndax dana pratiquer li muy def wala déet bu ko pratiquer lu mu doon li ma taquluna ku wax loolu yàllaa ko wax yaa ayuha alladina ee eh, yéen ñi gëm lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def te ba kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafalun bakkaar rawul ca yàlla ngeen di wax lu ngeen dul def cer na xam Hamdu Rabbi Njaay du ñàkk ñu ko xam ci mbooloo boroom xam-xam la da jàngale bu jógee suba teel mooy servir xale yi muy jàngal yépp mooy servir xale yépp moom miy jàng miy jàngale mooy servir ñi muy jàngal ndékk ci ñoom per kenn par kenn dafay ñëw Tiwaawan ci sëriñ Abdou boobu sëriñ Abdou ngi dund bu ñëwee ci Tiwaawan du yëkkati kàddu ma jaaxle ci moom nag lool ndax ma ay doomam bari nañu ma ci jàngandool ma ne ko man daal papa jaaxle naa yow ni ngay jàngalee xëy di jàngale suba ba tisbaar julli moo lay tàqale jàng wala dem sa kër guddi lu tax doo wax mu ne ma ah moo doom alquran lim ma sant mënuma koo matal bu ma waxee dolli ci fu ma jëm dégg ngeen wax bi alquran li ma sant te koo matal bu ma doll bu ma waxee yokk ca fu ma jëm est-ce que déglu ngeen wax bi bu baax a baax Ceerno Hamdu Rabbi Njaay faatu na ndeysaan góor bu baax <laughs> yéeme na waaye ñun ñuy xëy téye man ñuy xëy téye sànq ba léegi maa ngi téye rajo bi ndax lii may wax maa ngi ci walla déet moo tax wax dëgg ak dëggu du wuute wax dëgg ak dëggu wuute wax dëgg yomb na lii ñuy wax xam ngeen dëgg la waaye ndax man dëggu naa loolu mooy problème bi bu ngeen ma seenoon may ñëw dangeen di wax ni sëriñ Mbaye nga ne di njëru waaye bu ngeen xamee woon lu ma romb mu dem bu ngeen ma séenee may ñëw wuy leen ma rek ndax deeti ngeen wax sëriñ Mbaye ngi ni di ñëw sàcc baa nga ne di ñëw bu ngeen ma xamee woon lu ma dégg nettali ko bu ngeen ma séenatee may ñëw dootu leen wax mukk sëriñ Mbaye ngi di ñëw fenkat baa nga ne di ñëw mais nit jikko nit jikko waaye juddu du juddu juddu kañee ñu ko gën a rafetle kañe bàyyi kañe dijaay kañe umpaañ kañe léppam kañe bu génn jeneen a ngoog waaye seet ndax ñun suñu juddu foofu la lu ñuy wax raf bu rëy ci kañe la fekk baax léppam kañe la te ñun koo ci dugg mu ngi ci tukulóor mu ngi ci séeréer mu ngi ci joor bokk ji dafa jaxas deret ji jaxasoon na ba pare yax bu rëy amatu yax bu rëy ngi fekk ci kañe baax fu mu génn rek doota wax kañe ngoog jeneen a ngoog te jikko jubal rek ko yàq ñun nag koo ci gis ni ko si si si am na sànq wax bu rëy bu ñu wax mais xam nga Cheikh Alhaji Abdoul Aziz am na ku wax ni ndax Alhaji Malick nangam ak nangam mais Cheikh Alhaji Abdoul Aziz kenn du ko ñaanloo ci barkeem barke bàyyi nga koy ñaanloo. ñaanal ma ci sa barke baay man boo ma lee ñaanloo ñaanal ma ci sa barke maam. kon liggéeyu Alhaji Malick fi dox benn liggéey doxawul. kuñ ñi ci kuñ ñi ci mbàkke nga yëkkati sa bopp it sa barke maam lañ lay ñaanoo waaye duñ la ñaanoo ci sa barke waaye duñ la ñaanoo ci sa barke foofale rek ñun nag senegal <laughs> boo ko defee ñun kenn ku ci nekk amal nga sa mbokk sa réew xaq sëriñ mbay day ku bëgg Tiwaawan la te sëriñ mbay amul benn morso pàkk bu mu defar ca biir Tiwaawan ndax sëñ bay ba gën a Tiwaawan sëñ bay bu dee Tiwaawan la bëgg ñu yóbbu ko fa ndax bu ëllëgee buñ ko fa suulee te amu fa dara waa Tiwaawan danañ fàttali ko sëriñ bay kon li dawlati ba ci pouvoir ñi nga xam ne ñoo nekk temporaire ci kaw am nañu amee nañ leen xàq ñun itam waaye ñoom amee nañ ñu xàq waaw xàq nag ku mu dajee ci yow foo ci nit nit laa wax de waxuma rab nit nit laa wax bari na ñuy dox nga defe ni nit lañu te fekk rab lañu jikkooy rab lañu yor yoratuñu xalaatutu nit ay soas piir lañu bari na ci ñuy dox nga jàppe leen nit ndax ki ñu naan intellectuel la te xamul yàlla fu mu fu mu ko teg ndi diw intellectuel la te xamul dara ci yàlla xamul dara ci diine may fa moo tax l'islam kim mu compte nit xam nga dañuy wax ni nit nitay garabam waaye bu nitewul rek musiba am bu nitewul rek dof loola bu ko defee ñun kenn ku ci nekk li nga yore ci xaq te war koo joxe dafa bari xaq jaamu yàlla te mag ñi daawuñu wàcc benn warugar te defuñu ko démb damay damay nekk ñëw ca conférence bale ci kër ga ma ñëw fekk place bi toog rek nga toog ci suuf ñu naan che moom bëggul àdduna bëggul dara te xamuñu cause bi tax ma def loolu sëñ Abdou Aziz dafa mës yónni Jurbel lu ko yitteel ma dem Jurbel dellu si ci yitte bi de mu ngi ma toog di ba xaar waaye mu ngi sëgg di wax ak benn nit ma dugg si ci saalu tànpat ba rek jéggi benn nit mu siggi gis sama taxandeer ni ma sëriñ bu ma waxati yóbbante bi ngir yàlla baal ma xàq kooku nga jéggi Hmm? ba niñ ko denc ci suuf wax ma ko jox ma ko yóbbante bi te ñun moo ma yónni woon ba tey ba niñ ko suule ci suuf wax ma ko soxla bi laajaatu ko itam nji ma jéggi maa moo tax ndax moo ma yónni moo sabab ma jéggi ko yonent bi dund na ba dem musta jéggi nit te ñun nag bu sëriñ si ñëw xajal leen ko bu leen ko jox la ko teelul teelul nga daal di commencé nag lii xoolal dund nit ak nit koo ko koo mën rek wala nga tane ko rek noote ko wala nga def ko comme jàmm dund googu la ñuy dund te naan ay jullit lañu xoolal jéggi jumaa ku cay dem jéggi ni doo am yoolu jumaa mën nga am jumaa may doo am yoolu jumaa jumaa ku cay dugg jéggi nit doo am yoolu jumaa doo ko am dañ koy tere nga baal na si loolu nga wax léegi ci sa digganteeg sa baay dal na sa maam Moussa ak sa maam Seex Si Daaj Malick Si dañoo dem ci benn tool sa yor gëléem gi di jéggi bi sa maam dégg jam ko mu ko di ko sikki mu bàyyi bu mu gëléem gi gëléem gi tëf ca euh, ñebey tool ba dagg ko waaw fekk ñu nga jëmoon Njaasaan waaw fekk boobu ñu nga jëmoon Njaasaan kon mm. xam naa li may kon sa maam daal di jël bi mu sikkee dégg bi ba pare aw ci yoon di dem mun ko déedéet Moussa mun ko xamul ko bu nu dem fenn mun ko lu tax mun ko dañoo tooñ te fii ñu tooñe bala nu fay jógee danañu gis ki ñu tooñ ba bal ko ak mbaa duñ dem te fekk booba gëléem gi daa cof rek ci ñebe ji ñu fa taxaw difa taxaw difa taxaw lu commencé gul ba nga commencé gul ba nga si tey ñu seen benn waay bu yor bu mu weex fële mu ñëw dikk ni kee day alaaji Malick ñëw ba ci moom dikk ni ko si Malick loo fii def mun ko man kat tooñ te bu ma sañoon tey jii ki ma tooñ dinaa ko gis ba jégul ko mbal ma mun ko loo tooñee mun ko laab gi kii waccoon gëlëm bi toog ci ñebe ji moom laay xaar borom ba mu ñëw mu jégalu ko mbaam mu fay mu ko ma fay ko mu ne ko maa lay fayal sa bopp mbaa ma jégal la lu ci ay maa koy defal sa bopp kon boo waxee lii dégg nañ ko noonu. Uh-huh. la mu ci xam nga la mu lekk dafay daal di nekk kattanu gileem gi bu ca waratee xaqu jàmbur lay war demoon na moom Cheikh Al Hadj Malick mujj dundam lekkatul yàpp ñu defa ni def ko araamal déedéet fekk na nit ñi dañuy ruur te yëfi jàmbur ñaqu jàmbur lañuy ruure mu bàyyi meew bàyyi yàpp ñu laaj ko lu tax mu ne comme que ñiy sàmm mënuñoo sàmm te yëfi jàmbur la jur gi di lekk kon Malick dootul lekk yàpp maanaam cercle boobu ci tànkol ñal waa France tugal bind waa ji ni na joxe xàq bi moomu ko yàq wàññi ci ay xam nga ñoo ñu daal di defal ci say kayit yoo xam ni dafay am tâche boobu ëllëgee loo bëgg a defi dafay manqué bi mu ñëw ci Cheikh Al Hadj Malick moom taalibi bi ni ko day si ci sa barke yàlla dimbale na ba jot naa li ma doon xëccoo Hadj Malick lu tolloo bu ñu julleeg léegi mu ni sëm ni teg ni ko bu fekkee ni yaa ko moom day lew na la waaye bu fekkee ni moomuloo ko di nga ko delloo fu Malick mënewul dara ëllëg Hmm? dara ndax <laughs> moo tax gis nga taalibe yaa ngi def njaaxu tooñ topp seen barke sëriñ ñu sukkandiku di jël ak ku jàmbur yi di leen jox <laughs> yàlla xamul de yàlla xamul loolu comme que yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ni bu kenn rëy làmmiñ jote ak sa morom jar rëy làmmiñ ba ma jël yëfi jàmbur jox la ko bu ma la ko joxee daggitu safara laa la jox hmm? oh, wóor na xoolal nag ñun ku ci sa sëriñ sant Mbàkke wala mu sant si nga toog ci yëfi jàmbur sukkandiku ci sëriñ bi ba mu nangu yëf yooyu jox la ëllëg nga defe ni yàlla dana seetaan loolu ngir barke sëriñ bi sëriñ bi lu mu doon ci yàlla bokkuñu ndey bokkuñu bàyyi bokkuñu fu ñuy xëyee bokkuñu fi ñuy gonte sëñ Tuubaa def na ko jox nañ ko alal booba mu ngi jurbel lekkul alal ja joxu ko doomam joxu ko taalibam ndax xamul fu alal ji jóge tubaab yee ko mujj jëlaat te ñun léegi ku la nuyu làmbul poos bi nga mere ko ñun euh, am na lu yàlla dul jéggale mukk am na lu yàlla dul jéggale mukk déggoo ñu ne la dégg jëw yàlla dégg jëw déglu jëw nga njaalo fanweeri njaalo ak ñett moo gën njaalo fanweeri njaalo ak ñett yu mat sëkk mu wóor la ne njaala nga ko moo gënal yàlla nga dégg jëw ñun ñun eh, dañu naan jullit lañu jullit lañu mais jullit ci comportement la nekk nekkul ci kala kala ja ki solo ki kaalaa ki yi nekku ci ak kurus yu gudd nekkul ci loolu du jullit jikko la jikko la jikko tey bokk na ci xàqu yàlla nga jàpp yàlla muy yàlla yàlla yàlla lay doon ñi ci des ñëpp ay mbindeef la ñu doon est-ce que du ci ñoom la courant la ñëw na xam nga yàlla du yem ak kilifa yi te ñun senegal dem nañu bay wax bu nee na am mu am bu nee du am kooku cëru yàlla la du cëru nit cëru yàlla la bu ko alaaji Malik waxee du dëkk du dëgg dana leen jaaxal ba ni bu ko alaaji maalik waxee du dëgg du dëgg yàllaa ko moom cëru yàlla la na am فما شاء كان وما لم يشاء فممتنع كيف شاء احتكم ولو أن كل الورى أجمعوا على مطلب دونه ما استتم ولو أن كل الورى أجمعوا على مطلب jazakumullahu anna xayra yàlla nee na bu àdduna yëpp daje woon ni diw nangam dana am yàlla ne ne bu ma nee du am du am bu ñëpp nee du am ma ni dana am ku ci mën dara boobu cër gis nga dañ naa bay tooñ senegal senegal tooñ naa leen ci benn ngir moo xam ne bi dañ cee tooñ yàlla moo tax ma ñeme leen a tooñ yàlla yàlla yërëm ña bokk ñëpp bata joolaa ci ndogalu kenn la ah ndogalu kan la ndogalu kan la bu ma jëlee fetal wala puso rey sama bopp ku ma rey dama waaw kañ nag kon lu tax ngeen di jiiñ bato bi yàlla bato bi ñaata la daan def ñaata ca dee kon kan la foofu maanduteeg yàlla fa su suwee yàlla dafa seetaan maanduteem dafa suwee waaye du yàlla du yàlla bokku ci sax ah? trois yow ñetti tibb ñetti tibb nga war a tibb nga tibb diis boo fëree kana danga topp sa waaw gis na li ñuy tooñ senegal li ñu tooñ yàlla bari na Sénégal nag yàlla dafa leen a yërëmoon barki démb barki démb damay dem Louga fekk usine ba ñuy defar pour poudre yi lu ma ca fekk man sukan njéeréer yi yàlla rek man yàlla rek man rek man rek man ku yàlla mënuloo sotti du sotti du sotti xam nga sëriñ si sax ñaan lañu waaye seen ci seen bopp dañu tilim dañoo tilim yàlla du yekk ci ndab lu tilim xol yi moo jagatul kenn xoolal biru jotee ñun ñëpp ànd nañu ruuj ji toolu Serigne Mansour mi ma ko sañ a wax mais est-ce que Serigne Mansour ruuj ne ci sunu xol yi génn ci lu dul yàlla wuyu leen ba Serigne Mansour laa ko sañ a wax biru joté jël nañu ay camion fu nek ñu dem fa ruuji tolam mais ndax serigne Mansour ruujal na yàlla xoli jam yi génn ci kudul yàlla wuy leen fofu bi ji joté dem nañu ji bi ñu bi ji joté demal nañu ji ko tolam ndax ji na yàlla ci xoli jam yi yi dañu war di set yi lañu war di set waaw moo tax yàlla di wax ni fala tuti siwaahu bul topp kenn ku dul wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattabaa hawaahu wa kana abruhu furuta doo bëgg kenn kenn mbëggeel gu ëpp goo war a bëgg yàlla yàlla bëggeel gooy bëgg yàlla cay jiitu te koo bëgg na yàlla tax wuy leen bul ñaan kenn ku dul yàlla doo dem mukk ci réew du alaaji malik naan alaaji malik ala ay yaxa fa nekk bul tudd foofu demal ñaanal yàlla wala nga ni yàlla ci sa barke bi nga defal jàmm bi dootul barke alaaji malik barke bi yàlla ba ca ngay ñaan jëf ju sell ja ca ngay ñaan waaye dootul alaaji malik alaaji malik jàmm simple la waaye ci alaaji malik alaaji malik yaa alaaji malik yaa nangam lu du jóg du jóg yii ci lañu ci la réew mi yàqoo par benn benn te nit ñi xamuñu ko waxuñ ni bu fa dem boo fa demee ñaanal ci jëfam waaye doo ñaan ci juddu ba doo ñaan ci yax bi wala tatawakkalu doo wakkiilu wala ngay sukkandiku ci dul yàlla doo màggal kenn dul yàlla nga góor ga wax gis naa ni koo fi màggal it jaam rek ngay nekk ci suuf ndax ab jaam la waaw koo fi yëkkati nu mu mënti toll ab jaam rek la rek rek nangu ko nekk nangu lépp jaam la waaw kenn rek moo nangu ak jaamam waaye ñu wuute ak moom muy Seydina Muhammad ba mu naan qul innama ana basharun man nit laa waaye ba mu ne yuuxaa nga xam ni tàqalikoo ngeen ba mu ne yuuxaa nga xam ni bokkatu leen fu ngeen jëm انما انا ني نان يونت بي نيت ريك لا مي نيت ريك لا مي يوحا فوف لا ووتيك سباي فوف لا ووتيك سمام فوف لا ووتيك سسري حق يالا موي غادي كو تود فو تول يالا نينا نم كو واخيو تون صاح واذكر ربك اذا نسيت فاتلكل سبروم بو فاتيه ah boo fàttee yàlla fàttaliku ko wala boo fàttee fàttalikul yàlla ñaari tafsir a fa nekk boo génnee ñi ci sa xol ñu dulul yàlla wooma man yàlla ma ñëw toog waaye xajowu ma faak Abdul Aziz xajowu ma faak Alaaji Malik wooma wahdahu la sharika la foofu rek la xaj àdduna li mu yaatu yaatu yàlla xajul fenn lu ci xolu jaam bu bokkaale wala ak yàlla kenn xaqullaahi bokk na ci xaq yàlla an tataawana ma al muslimin jullit yépp àndandoo jàppalante ñun nag dootuñu ay jullit waxoon naa leen ko sànq au départ ay tariqa lañu waaye dootuñu ay jullit ak i ak i mbooloo rek waaye jullit yi moom déedéet tànt bi tey bu fi keneen ku bokkul ci kii bi naan kii de tiijaan yi la wala tàntu nangam yi wala tantu nangam waaye tàntu jullit yi la ñëw toog déglu yàlla xamoo yàlla dafa génn ci mbir mi يلا وخل جن تكلمة الذين يستمعون القول قول وخ جل تكلم لو أي بول خال كي وخ بقول تكلم تكلم وخ كم كم كي وخ كان مم تكلم نلي مي تكلم لما يوخ واي بول خال كي وخ بول خال نخ نيوخ دفع بار ميشي لبلا فايبر أجمي فايو وانظر لمعنى القول ولا للقائل سنبنينا جزاك الله عنا خيرا خور المعنى بي بول خور موتخ بو غيسه بو ديغي كوي واخ تنان يالا نينا بول سيت مو سانت سيتال واخ جي واي ليغي بوكو ديفه كو سانتول سيغا نيا سانتول مباكي واي ديغلو كاي واخ بو ني يالا نينا رك ديغلو بن سيرين دافا نيك سي بن دارا دي جانغالي njang ma aw yoon lool benn xale daal ni sëriñ bi lay laaj sëriñ ba nag moo gën a ñaaw ca taalibe yi ñaaw bi nga xamee ni loolu am na xale bi laaj ba ni kuy sëriñ ñu ne ko diw de mooy sëriñ bi mu daal di xale bi daal di bu bagaasam rek di dem mu ne ko ay eh, doom boo demee cib sën tànn la nga soxla rek la nga soxla woon nga bàyyi ko toogal boo demee cib sën tànn la nga fa bëgg rek la nga soxla woon nga bàyyi ko boo demee cib sën waaw. moom nee na comme nga ñaawaay ba bu ko defee ñu taxaw ànd ñun jullit yi taxawal yàlla bëgg génn fi li yàlla bañ waaw fexe baatu yàlla jëm kaw baatu jaam yi féete suuf yàlla royloo wuñu ku dul sayyidina Muhammad mën ngaa sëriñoo ku nekk na seex tijaan nek sa serigne na keneen nek sa serigne jàppal ci sa serigne waye royal ci rasulillah fofu la yàlla joxagn biñ ko waxe Cheikh Al hajmal def daf ni man day seexay sama serigne waye yonent bi dama yàlla royloo kon ñun nañu roy yonent bi jullit yi fu ñu daje rek yonent jëmmi yonent bi waroon na faa daje jikko yi ci yonent bi julit bu nek waroon naa jéem am ben jikko bu ñu daje rek di rasulillah mais da ko wax wat Tiwaawan ni man gisuma ku fi bëgg sëñ Babacar te kat sëñ Babacar man dama wax de ba tey gisuguma ku bëgg sëñ Babacar gisuguma ko gisuguma ku bëgg sëñ Babacar kooku mom mën naa ci door paaka mala ma door ci kamini gisuguma ku bëgg sëñ Babacar lu way di wuyoo da koy nuru de جزاكم الله خير جزاكم الله خير Mansour baax na jërëjëf jërëjëf dama bëgg a àggale tuuti rek arrêté kon yonent bi la ñuy royloo yàlla ngi wax ak Seydina Muhammad naan ko qul waxal yow Seydina Muhammad in kuntum tuhibbuna allah bu fekkee bëgg ngeen yàlla topp leen ma yàlla bëgg leen bu ngeen bëggee yàlla topp leen ma man yàlla bëgg leen ndax yonent bi sañ la wax ku dul yàlla xam nga ñun ñi fi toog kenn ku nekk am nga xalaat di nga génne sa xalaatu bopp waaye ndax yonent bi amoon na xalaat laa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa lu mu wax rek yàllaa ko ko wax la lu mu génn rek yàllaa ko génn yàlla wan na ko ko ci yi mu duggoon yépp di ca wane nite di mu duggoon yépp te jiitalul ci yàlla ni ko ci yàlla génne ba mu naan dana yéeg xeer wa te waxul insha allah yàlla ni ko baax na xeeru jaam nga jaam la mu sonn ca loolu sottiwul yàllaa ci ànd mu sotti kon ñun war nañu roy ci sayyidina muhammad waaye ñu nan ngay royee koo xamul sunu doom yi kenn xamu ci yonent bi kenn ku ci nekk boo nee Bob Marley ñu wax la disque bi mu njëkk a tëgg ak ba mu mujj a tëgg kañ la dee ak fu mu dee ak nu mu dee nañ koy waaye waaye koo ci ne rasulullah jàngoro joo xam ni kenn xamul fu mu wéree bi nag dañu moo ñu war a gënal sunu ndaay ak sunu baay te nag ñaar fukki maam yonent yi ak ñaar waxtu woo ko dee sikar doo ñàkk dépense dafa am fu ñu koy jaare nag waaye loolu it duñ te tëb rek jox ko xam nga xam nga loolu yomb na ma laaj ma laaj leen xam nga yonent bi lañu wax ndax yéen kenn mës naa julli ci yonent bi naa julli ci yéen mës kenn julli ci yonent bi kan ci yen moo mës a julli ci yonent bi waaw kan moo mës julli ci yonent bi ci yéen ah nooy jullee nooy jullee nooy jullee allahumma nga wax du yow da nga santaane du yow <laughs> du yow allahumma tusalli dootul yow moo tax ku ci ku julliloo yàlla yàlla nangul la nekkal ci duus dégg turu Seydina Muhammad neen allahuma yaa ngi ci sabe mais yàlla moo lay wuutu ah, yaa ngi ci duus yaa ngi ci duus toog di dem ginnaaw kër dégg turu yonent bi ni allahuma dootul yow ca biir duus ca biir duus ba yàlla moo lay julli waaye yow julleetuloo ah. moo tax yonent bi ku ko bëggul xamoo looy bëgg ñu ngi am ñu ngi am ñu ngi am benn pax moo xam ne da ngay su sëgg sax doo ko def tibb ba doyal te ñun li ñuy def xamuñu ko xamuñu ko xam nga yàlla ngi wax naan kii xale la bàyyam jóge na fi alal ji moo ko moom mais xamagul alal bu ko jox mu yàq ko waaw mais jullit yi nga xam ni xamuñu kuy Seydina Muhammad ba tey dañ koy jaawale ak sëriñ si te sëriñ si mënuñoo dab Seydina Muhammad te duñ ko dab mukk ndax xamuñu ko ki xam sayyidina muhammad kenn rek la muy yàlla ndax bo ne allahumma wóolootoo sa bop ci set te nit du wàññi daraje jambur waaw nit warta wàññi garatu jambur kon yàlla mi xam sayyidina muhammad nga ni ko wutuma ci defal mako ni ko beugé yéeme na yéeme na yàlla ñu yàlla defal tawfiq eh, dañuy waxtaan rek nag lépp ngi ci loxol yàlla